Non, non, c'est quelques patrons qui ont des problèmes pour leurs poches. D'accord. les poche les patrons de presse ils ont des poche Moi tout simplement parce qu'il y a eu changement de régime perdons le privilège d'un homme avec l'ancien régime Nous avons le régime en place régime bu bon un chantage qui ne dit pas son nom mais xam nga l'actuel pouvoir ku xool circonstance ni accès au pouvoir xam nañu kenn du leen chantage quand même. Hmm. dañu xeex ba jot ci nguur gi. on leur demande de payer l'impôt mais buñ ko mënul fay mais ñu waxtaan les services techniques des impôts au domaine ñu xool naka lañ leen ay moratoire le code général des impôts recèle de plusieurs modalités ñu mun a aménager ay remises d'impôts ngi fii ay moratoire ngi fi ay lu nekk ngi c'est c'est c'est c'est une affaire purement technique hmm. ñoo ko bëgg a politiser yuuxu yóbbu ko fu mu quand on a contrôlé c'est état on s'est rendu compte que dañuy prélever dañuy couper l'impôt à la source de leur employé hmm. mais dañ ko reversé. te dañ koy Les gars ils te bu ñu tëb rek na fay ah, pourquoi pourquoi l'état état bi am belle position de fermeté mais parce que dañu gis ne y a eu des détournements ces patrons de presse là dañuy dagg on a contrôlé les bulletins de l'employé. employés un état financier mm-hmm. il prélève les impôts mm-hmm. les impôts sur les revenus pour nous faire a fay état mais vérification fait duñ ko duñ ko reversé Les fu mu dugg bu fekkoonte ne coupé wuñu ko jëluñu ko ñu ne ah ñii kat amuñu les moyens de amuñu capacité fay impôt mais yow nga dagg ko ba pare nga dagg ko mu dess reversement à l'état reversé woo ko fan foo ko dugal poche la dem. seen poche la dem. Euh, Pape Ibrahima Niang lan ngeen cotisé social. waaw couverture ñuy amuñu IPM seen ay employé aide à la presse bu ñëw ñu jël ko tak ci ay jabar jënd si ay auto loolu doy na les reporters les journalistes ñu nekk dans la misère c'est ça la réalité. Euh, lan moy lan mooy la euh, réalité. c' à dire que damay revenir juste rek ci limu rebondir ci limu wax. waaw. Euh, dama bëgg. Hmm. parfois bu ñuy débat. waaw donc ñuy wax loo xam ni xëy na peut-être euh, dina cohérent par rapport.